bu baax di kontaan bu baax maam alaaji malik dana bil xadratayni xabantum xayrukum ahla tijaani mu ne ci xadrat bii di wasi xadratul jumaa bi ñu jógee ak wii ñu nekk muy wasifa wi keneen ku dul yéen loolu la leen ñëwee loolu ngeen ko jiitoo ndax dafa di ngëneel yoo xam ne bis boo ko commencé def rek yaag yonent bi yéen a ko bokk ak su xulafaawul arbaa ak Maulana Ahmada Tidiane Cherif kon lépp dafay aju rek ci waa abu rabbaka atta yaatiyekal yaqin bëccëg bi yëpp loolu la joxe bu ñu jógee jumaa ji ñëw wàccee kaamil yi ci kaamil yi lal malaanu xadara bi julli tàkkusaan lal malaan mi xadara buñ jógee ci loolu julli tibis teg ci wasifa wi buñ ca jegee julli gaye ñaanalante dem noppalu ba subaat fa yaa wayxa faanin kaana yasaddu faaniyan tamassak bi baaqin laysa an an ka yaqiibu sunu maam Alaaji Maal dafa waxoon ne yow doomu aadama dangay jeex te jeex gi ngay jeex daf la jege comme dangay jeex ta am na ku fiy des te du mos a jeex te moom ngay fekk jàppal ci moom ni ñuy jàppee ci moom mooy jox ko sa bopp jox ko sa bopp mooy jaamu ko ni ko bëggee moo ma ngi la doon wax sank xamane la soufi dafa am lu mu laaj pour nga Sufi, insaan soufi dafa laajoon nga nek wa sabruhu wa sidquhu safaa'uhu da ngay meuna muñ ci jaamu yalla gu met da ngay deggu ci jaamu yalla gi nga nek jaamu yalla gi dang koy sedda selal kon nga deg ne bo fi ñewé ci suba ba légui li nga fi gis do yegg lu dul da ngay fàtte sax Maulana Cheikh Al Hadji Malik, da ngay fàtte sax Cheikh na Tidiane da ngay fàtte lu dul yàlla du yonent bi doo ko dégg xoolal wasifa wi ni mu rëyee lan lañ ko ubbee fatihatul kitab alquran ne wala qad ataynaaka sab'an min almasaani yàlla nee na la fatihatul kitab lépp loo soxla ma nga ca nga pare teg ca istighfarul kabir lu tax astaghfir istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursilu sama aleykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaara nga jóge ci dem ci salatu ala nabi ba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nga jóge ci dem ci hayla la ba la ilaha illa allah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli kalimatul musharrafa yonent mu ne lu gën ci lima wax ak yonent yi ma jitu won moy kalimatul la ilaha illa allah ñu wax ko ba suñu xol yi mànd ñu ñëwaat ci ci wasifa wi la buñ koy tejje tëjawaat ko jawharatul kamal jawharatul kamal mooy xeetu jullin bi ñuy jullee ci yonent bi nga xam ne bu fekkee yeneen xeetu julli yi dañoo nekk di xaalis yii di wër wër or yii di yii di përëm jawharatul kamal moom mooy or bu piir bi moo tax ñu tuddee ko jawhara al kamal parce que sifaat melokaan yi nga xam ne yonent bi yëpp daf ko amoon ta nga xam ne moo di melokaan yi nga xam ne moo di as sifaat al haqiqi yi nga xam ne moom la yonent bi gënee ku moom soo demee ci jootu kamal ñu di ko ko tegleel Serigne Cheikh si mu ne ñeenti vol la vol bu njëkk bi da ngay jël fëgg buntu asamaan yi deuxième vol bi da nga koy jël jeexal juróom-ñaari asamaan yi troisième vol bi da nga koy jël ñu xadra ñu ubbi la xadra ba quatrième vol bi da koy jël toog ak sa borom moo tax jawratul kamal boo ko seetee ñetti allahuma moo ñeenti allahuma moo ne allahuma boo fëgg rek am na martaba booy jeg allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya soo ko fëggee rek yaa ngi jël vol bi di dem waaye allahuma salli wa sallim ala ubil nañ la xadra ba allahuma salli wa sallim ala talhatil haqq bil haqi kantil adam toog ci hadratu ilahiyya motam mu nek vol yo xamne mom ngay jël motam wasifa nek lo xamne sidaj mal ne na juma ak wasifa su ngeen xamone wala alimtu ma biha min fadla ataytumuha afwatan lil fadla mu ne su ngeen xamone li ci nek ci ngeenel dina len jaral ngeen baf ku ndakaaru ba fi kon bobu modi premier melokanu kusufi bi moy sitquhu mu dëggu mooy safauhu muy sellal bi ci tegu benn mooy la mooy sabruhu mu muñ ci topp yàlla kon baat boobu mooy saat bi ñu ñëw ci waaw bi mu ne waaw bi damay am lu muy teg wa wajduhu wa wudduhu wafaauhu wa wajduhu mooy falaa yamunu makrullahi ila al qawm al xaasiruuna taalibe cheikh dafay jaamu yàlla ba jeex ci boroomam te boo ko laajee jaamu yàlla yi ku ci gën ne la man parce que du wóolu yàlla mooy wa wajduhu toujours dafay jàq dee na li mu def baaxul moo tax moom la sama walaaji maal di wax ne tama wajal baxru baxru dambi yaa siqati wa inna nii rabbi xiftul xalqa yallaahu dama dama lab ñu ne Maodo foo lab mu ne ci ji sama géej ban géej mu ne géeju bàkkaar waxul boppam dafay jàngale lan mooy tasawuf tasawuf boo ci nekkee doo wóolu sa borom moo tax mu bokk ci surutu tariqatu tijaaniya hadamul amni min makrillaahi Cheikh Tidiane nee na sama taalibe dafay dox ci bayna rajaa wal xawf li ngay def da ngay yaakaar na yàlla nangul ko waaye da ngay jàpp ne it ku yàlla bind yaa ci yées soo melee noon rek yow da ngay nekk taalibe Seex mu ne wa wajduhu bi jees wa wudduhu da ngay bëgg yonent bi da ngay jeex ci yonent bi bëgg ko qul laa as'alukum alayya min ajrin ilal mawaddata fil qurbe mu ne bëgguma ci yéen dara sopp ma ci leen lu dul ngeen sopp ma ba laal ci man ngeen sopp ma ni ma fexee ba ngeen bëgg yàlla man yonent bi ni ma fexee ba ngeen xam yàlla fexe ba ngeen koy jaamu leen rek ngeen may soppee ngeen bëgg ma bu ngeen ma bëggee ngeen bëgg lu laal ci man mooy sama njaboot moo tax wa wajduhu wa wudduhu da ngay sopp yonent bi ñu ne wudd looy lan ñu ne mooy ma mahabbatu mahabbatu sëriñ Mansour soo borom daara yi daan na wax ne ñeenti xaraf la al miimu wal haa'u wal baa'u wal haa'u mu ne miim bi bala mu ne ay mamaatu ki nga bëgg te muy dëgg fu mu dee nga def lu ko ray ray la ñun nag ñun taalibe cheikh dañu bëgg cheikh na tijaani ba lu ray dañu bëgg yonent bi ba lu ray yonent bi ray ñu lu lu lu rey yonent bi rey ñu fu yonent bi dee ñu dee fa moo ñu waral sunu coow li bari lii amuñu jot de bari ñu wax de waaye dañoo jeex ci yonent bi xaabiban la mu ne mooy xayaatu ki nga bëgg tamuy dëgg ci yow situation bu mu dund nga bokk koog moom moo tax bu ñu lalee malaan mi di wasifa dañuy jeex tàkk ci yonent bi ba duñ yëg loolu yonent bi baa bi mooy lan ñu ne mooy balaa u ki nga bëgg tamuy dëgg bala bu ko dal dal la xaa bi ban la mu ne mooy xanaa u coono coono bi ñuy toggoo yëpp ci wirde ak wasifa dara waralu ko lu dul jeex gu ñu jeex ci yonent bi mooy wudduhoo waddi ban la mu ne wafa wafaa uhu da ngay jeex ci yonent bi da ngay jeex jeex ci yonent bi kenn mënu koo am te nekkuloo nit koo xam ne nga xam yonent da nga xam yàlla ku xamul yàlla mënoo jeex ci yàlla wa mu yonent bi moo yàlla moo wax ci hadisul quds yonent bi nettali ko mu ne man abadani bi duni maarifatin walaw ittaqattaat abdaanuhu iraban iraban lam yasdat min allahi illa buada ki may jaamu ta xamuma bu ma doon jaamu cëram yëpp di dagg benn par benn amu lenn lu mu koy jege ci boromam lu dul muy gën di ko sori waaye ku ñëw fii gis ni muy doxee daa xam ne ñii li ñuy def ci xam-xam bu wóor lañ koy teg di nga xam ne ñii li ñuy def lu am cëslaay lu tegu la parce que lu tax yonent dane man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa waraddun yonent waxul ne ku fi créé ku sos la wax ku sos ku créé loo waaye waxul sof kon nga dégg ne bu fekkee da nga ne yonent bi daanu lal di wasifa ahan kay yaa ayyuha alladina amanu zkurullaha wa sabihuhu bukratan wa asila alquran nee na bu ngeen xëyee dee neen ma sàbbal bu jant bi soye de len ma sàbbal kon def lenen amul defé leneen defé nenen mo am waye def lenen amul kon li ñi def defé nenen la waye du def lenen ndax yonente man ahdasa fi amrina aza ma laysa minhu fa huwa raddun li nak ma ahdasna shay'an fi amri rasulullah sallallahu alayhi wasallam amul dara lo xamni ne yonente ko ñu sos ko waye lam doon def mo am amélioration bo xam da fay yok talibé yi di ci gënd yi ak seen bop Sidaaji مالي دا nekk نيت كو خامني ينتحس كل فرصه اوكاسيون بومو ام mu دا كو daf bëggul taalibe yi jeexal seen dund ci dara lu leen lu neexul yàlla ndax qasirun yaraaha alxaafiloona tawilatun wa maa hiya illa lamaatun baddat wa taxibu adduna dafa jeex te doom aadama bi ci dund moo ko dafa gàtt te doom aadamaa ko gën a gàtt te léegi mu jeex mu ne comme day jeex te li ngay dund day jeex te fa ngay jëm du jeex te loo fa yóbbu du doy yóbbuwaale fa loo xam ne boo fa demee du jeex ba nga mën a dund xayaat boo xam ne xayaat bu dul jeex la adduna day jeex loo fi am dafay jeex àllaaxara day jeex te fa am du jeex kon profitool fii jeex nga pare préparé fadul jeex jële fii jeex loo xam ne boo fa demee dara du jeex cheikh na kon bu ñu jullee ba pare nañu profito ñu dol sunu dund gépp ñu jeex ko sunu borom maolaana cheikhul haaji malik loolu la ñu defal bi ci des ban la mu ne wa faqruhu wa faqduhu fanauhu dégg nga wafaauhu matal kole mu ne wa faqduhu da ngay yëg ne amoo jaamukatu yàlla du yëg boppam ci li muy jaamu dafay jaamu ne moom amul ak ban mu ne wa faqruhu dafay nekk ko xam ne boromam rek moo ko yitteel sàkku yàlla rek lépp loo xam ne xam na ko bu ko defee yàlla fay ko rek loola da cay jeex ak ban mu ne fanaa uhu day jeex tàkk ci yàlla mu ne tamat bisa samat sifaatu man bisa manaa uhu ma alaaji maal nee na képp koo xam ne dafay wër tasawu tasawu fa ngoog man maali faawaat de bii laa yor mooy tasawuf bi nga xam ne moom la yaa taalibal ilmi aati malikul asari tasfar bi aajika min junaydi sil asri mu ne yow mi sàkku xam-xam bu set jaamu yàlla gu set aati dikkalal malikul asari borom parasol bu bi nga gañe bi xaajika ci aajo bi la jox so bi aajo bi la ma a jóg maa koy mën a min Junaydi sil asri imaam Junaydi ma doon jàngale tasawuf mu ngi nii Malik ma toogoon di imaamu daaru hijra toog ci raw du yonent ba di jàngale mbeelam xeetu xam-xam yi nit yàlla soo ñëwee xeetu xam-xam yi borom a nii moo koy jàngale waaye soo demee ci imaam Junaydi borom tasawuf bu sel bi moo tax Serigne Babacar ne muraqin murabbin Serigne Babacar ne sama baay muraqin waaye murabbin boo ñëwee da lay tarbiya ba nga mat sëkk mu yéegala ba sëriñ ba sëriñ Babacar Si ne xam nga fu mu ko jëlee ñu ne ah mu ne mu ngi ko jëlee ci Seexna Tijaani rabba bila xalwatin asxaabahu alanan hatta staqaamu fa yàllallahi man aahu rabba dafa yara bi bilaa xalwatin ci lu du dugg xalwa xalwa baa ngi ni li góor yàlla daan dugg xalwa ñeen fukki at di ko dugg xalwa juróomi téeméeri at pour am cer soo ñëwee ci xadara bi rek wala nga ñëw ci wasifa bi da nga yéeg ci boobu martaba mu ne rabba bilaa xalwatin asxaabahoo képp ku ànd ak moom ala nan ci lu fees hatta saqaamu ñoom ñëpp dañoo jub koc foo fekk taalibe Cheikh dafay jub foo fekk taalibe Cheikh dafay yiw foo fekk taalibe Cheikh dafay mën a sañse foo fekk taalibe Cheikh dafay sell lu tax lu tax lu tax al istiqaamatu mooy defar nit bu jubul rek man ta jëriñ kenn alquran dafa ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim lol lañ jëk ñaan alhamdulillahi rabbil alamin daga bak yàlla yàlla yaay ponkal mi boy julli ñu ngi sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin dang ko tag arrahman arrahim ku fi am ya ko fi ku fi am ya ko ko jox fële ku fa am ya ko jox maliki yawmiddin buñ démé ci bis penc ba garat yëpp dañ leen di dégrat yow rek ya fi ne yàlla ne wax nga dëgg bàkk nga ma tagg nga ma jox nga ma li ma moom loogu loo soxla nga ne ko iyyaka na'budu dama bëgg yow rek la ñuy jaamu jaamuñ kenn ku dul yow wa iyyaka nasta'inu yàlla ne loolu dëgg la loo bëgg loo bëgg ma dimbale nga ne ko ihdina siratal mustaqim dama bëgg nga defal ma moo tax boo demee na na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim salaatu faati ba ñoo ne wal haadi ila siratikal mustaqim boo déggee baatu siraat ci arat bokkul ak at tariqu bokkul ak as sabilu tariqu mooy yoon woo xam ne da nga cay jaar di wut lu baax waaye siraat boo ko déggee mooy yoon woo xam ne ci yàlla la jëm sabil nag boo ko déggee mooy yoon woo xam ne mën naa dem dakaar mën naa dem fu ñuy naanee sàngara mën naa dem fu ne moo tax inna lazina jaahadoo la naa lanahdiyannahum subulana ñi ñuy wut tamuy dëgg dinañ leen gindi jëlee leen ci subulu yóbbu leen ci at tariqu suñ jógee ci tariqu ñu yóbbu leen ci assiraat moo tax ihdina siraatal mustaqim haaj Mohamed jërëjëf yaa oustaz waaye mag ñi mhm. dañu wax ni ci jamono Cheikh Ahmed Tidiane mhm. def nañu délégation dem seeti ko di ñaan pour mu ñaanal leen istixaama mooy la constance dans la droiture koo xamante ni doo wàcc yoon bi cheikh ne leen dafa jafe waaye bàyyil ma ñaanal leen xabuul te mooy lo saf yàlla Seydi Hadji Malick ñëw moom tànn li nga xamante ni mooy istixaama ci jamono bu doy waar lan moo ko may loolu waaw liko ko ko may rek moo di teg tànkam ala sirati mustaqim yi ndax Mawlana Cheikhul Hadji Malick Mbuub suñu waxantee dëgg dafa uh-huh. waxoon ne wa saara sa diinu man lam yaati min bidaa'in fa hum yaquluuna haadal mar'u qad damaa ah. jaamu ci damaa waaru ci jamono ah. ñu ne Maodo lu ci jaamu mu ne ah, jamono joo xam ne képp ku andiwul bidaa jëloo sa loxo teg ci sa dën dañ naan waa ji dafa tardé mu dem ba mu yàgg mu naan man alaaji maali damaa tumuranke ñu ne ko Maodo lu la tumuranke mu ne man samaanu unaasin fii amaasati fii imaatati sunnatin wa basul ulumi fiihi uyub jamono boo xam ne sunna dee na jàngale xam-xam dee na kenn ku ne rek sama maam nee na sama baay nee na maa man lii maa sañ lii Seydou Maal na bi mu ñëwee dafa effacé loolu. jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér ba yàlla nangul ko ko looloo tax mu mën a andi al istiqaamatu jël taalibe yëpp teg leen ala siraati mustaqimin gis nga xam nga léegi xam nga ci luñ jógee léegi fan lañ jógee léegi ci jàkk ji xam nga luñ doon def. dañ doon siyaara yàlla. Maodo dafa ne taalibe ñu ne ah mu ne yàlla dafa wax ci benn yonent dafa ci hadiisul qudsi mu ne ndax bu amoon benn dex bu nekk ci buntu néegu kenn ku nekk ci yéen bis bu nekk mu sangu ci juróom yoon est que dina am benn taq bu des ci yéreem ñu ne déedéet mu ne wa hakaza salawatul xams maam alaaji malik ne wa man yurid duqula masjidin fala budda min an niyaati niltal amala ah. yow mi bëgg a dugg ci jàkka dafa am loo war a yéene ci sa xol yéene bu sell boobu ngay am balaa ngay dugg ci jàkka ji moo tax boo duggee ci jàkka ji mébét boo amoon da koy am hmm. lu tax mu ne yan wi bi anna daaka baytullaahi daaxiluhu fa zahirun mawlaa kii dugg ci néegu yàlla day jàpp ne yàlla lay ziyaara daaxiluhu kay dugg ci biir jàkka ji fa zaa'irun kooku kuy ziyaara mawlaahu boroomam te nag wa annahu wa fil hadisi qaa'idun fil masjidi zaa'iru mawlaahu bila taraddudi Maam Maodo nee na jàng naa ci hadis yonente nee na képp ku dugg ci jàkka yaa ngi toog ak sa borom yàlla te ku toogaaleeg yàlla am nga cër bu rëy kon dañoo jóg ci toogaale sunu borom yàlla mu del na wa annahu haqqun alal muzaari ikraamu man zaara maa taasiri dafa nekk force ci képp ku la ziyaar Mouhamed bu bu ma bàyyi woon lépp ñëw sa kër nga jox ma ma añ ma jox boisson ma nan mu ne comme yàlla ngay teral bo nit doom aadama ngay teral bo demé ci mom mu yëkëti lum la teralé waxuma la ak yàlla kon ñun dañoo siyaar woon yàlla ta damay wax ne ben aya alquran ngi ku mëna tek loxo ci sa dënd ne aya bi ñoo ci ëppale ku dul waxu ñu dëgg xam nga aya bo moy ban fii buyuutin azina an turfa wa yuskara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bilghudi wal asali rijalun la tulhihumu tijaratun wala bay'un an zikrillahi وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار يالنا يعني في بيوت انت اي نيغ رك امنا ين تي نيغ ازنا لاي جوخ نديغال ان تورفا باني يكتي لان ويوسكار ني ديفا تود فيها تي نيغ يوي اسمه تور يالا خولال امنا نيغ يو خامني مبو بني جولي دا ناي سيكار واي كون دا يور سا كروس واي سيراج القران نينا نيغ يو خامني دا ني تود يالا واي بني تود يالا دنج يوخو با نييب ديكو ديغ مالاي لاج نيون نيان نيوكاي ديف fi buyutin azina ci néeg yoo xam ne digle nañu an turfa baatu yëkkati gi la njëkk da tudd dañuy yëkkati yi ca kaw wa yazkuru ñuy tudd lan la ñuy tudd foofa mu ne fiiha ca biir néeg yooya ismuhu tur yàlla ba kon loolu ñu ko moom ñu ne yu sabbihu lahu da dañuy sabbal seen borom ca yooya la néeg bil xudwi bu ñu xëyee wal asaali may laaj mbuub ñan ñoo fii xëy suba lal seenu malaan di saabal yàlla di julli ci yonent bi di wax laa ilaaha illallaah ñëpp di ko dégg ba jant bi fenk fan nga ko mën a jëlee fudul ci tiijaan yi may laaj mbu fan la ñuy demee jant bi so ñu lal malaan di saabal seen borom di wax laa ilaaha di julli ci yonent bi ba jëpp ba marax bi jeex foo koy gisee loolu ci tiijaan yi kon nga dégg na lépp lu ñuy dem dafay nekk ala sunnati rasulillahi sallallaahu alayhi wa sallam wa shariati muhammadin alayhi salaatu wa salaamu moo tax maam Alaaji Maalik radiyallaahu wax ne na ngeen di góorgóorlu ci bépp occasion boo xam ne am ngeen ko ngeen profité lu tax mu ne haasi tijaani allazi haasi tijaani bihil hidayatu wa tuqaa mu ne haasihi huda tijaani nga baal ma yoonu Cheikh na Tijaani ñu naa ah, mu ne bihaa aji nekk ci yoonu Cheikh na Tijaani alhidayatu jub wa tuqaa ak ragal yàlla mm-hmm. mamalaaji maal nee na boo demee di jëli wird buñ la laajee lu tax nga bëgg a taalibe cheikh boo ko tontuwul neen taalibe cheikh ñaari kado la am cheikh tidiane ñaari kado rek lay jox taalibeem ñu ne benn bi ban la mu ne bihi nekk jub hmm. boo ko jëlee te somm ko ta muy dëgg rek yàlla jubal la ak ban mu ne wa tuqaa ak ragal yàlla mu ne sullaakuhu ñi jaar ci yoonu cheikh na tidiane intahajo jaar nañ ci yoon waxee ne xayru mutariqin mooy gën ji tariqa bu nit di jaar pour yegg ci yàlla sidaaji mal nee mooy tariqatu tidiane ya hmm. mu ne tulaaqi nulaaqi hi maanan laa nulaaqihi maanan wal jismu baida nulaaqihi dañuy dajeeg yonent bi bu ñu demee ci biir jàkk ji di wasifa maanan ci maanaa wal jismu donte la jëmm yonent bi baida ma ngi ca madinatul munawar benn waay fekk ma ma toog di conférence ca Mboro mu ne ma Alioune Diagne mu ne ah mu ne ma yow yaa yéen tijaan yéen wax ne su ngeen dee wasifa bu ngeen lalee malaanu wasifa wi ba yegg ci juróom-ñaareelu per Cheikh na tijaan dafay ñëw rasulillahi dafay ñëw xulafa u dañuy ñëw mm-hmm. bu ngeen lalee malaan mi ci sëwiye sëñ Babacar lal ko ci sëwiye Seydi Hadji Malick lal ko ci sëwiye ba ca Ndar lal ko ci sëwiye ba ca Dakar waa kër sëñ Abbas Sall lal waa kër sëñ Hadi Touré lal waa kër sëñ Birahim joobu ndal lal waa kër sëñ ab sëñ Alaaji Rawaan lal kenn ku ne ne yonent bi ñëw na ci ñun te yonent bi jenn jëmm wax jooju xam nga ne jubul yonent bi jenn jubum la bu ko ne ne ñëw na ci ñun wax boo koy wax boo demee ba mu yàgg te jubul da koy bàyyi ma ne ko pare nga mu ne waaw ma ne ko di koy ngay seetaan football ma ne waaw ma ne ko ku dàq football ci àdduna mu ne ma ku ñuy wax Messi ma ne ko da koy seetaan muy football ci club ba mu nekk mét si benn jëmm la bal bi muy fubal benn bal la terrain bi muy nekk ban benn la tubaab yi teg ko direct nga tëdd ci sa néeg di ko seetaan direct ma tëdd ci sama néeg di ko teetaan direct ka ca France di ko seetaan ka ca Allemagne di ko seetaan mu doorandoo benn bal mu duggandoo ci benn camp adduna yëpp seetaandoo ko ci jenn jëmm la bu benn tubaab mënee lijjanti loolu ba benn jëmm ñëpp di ko séddoo ci benn instant rasulillahi mi tax yàlla bind ñëpp nga xam ne moo ne kuntu kanzan maxfiyan fa xalaqtul xalqa fa bi yaarifuuni yàlla neen dama nekkoon ndàmbuleer kenn xamuma fa xalaqtu ma bind alxalqa mbindee fi waaye fa ci rasulillahi yaarifoo nii na ngeen di xamee maay kan lu tax fa bii ci rasulillahi fa 80 la ba 2 la yaa 10 10 plus 2 égale 12 12 plus 80 muy 92 Muhammad di 92 mu ne fa bii ci rasulillahi yaarifoo nii ngeen may xamee maam alaaji maal ne huwa moom rasulillahi albadru mooy weer wa wal misbaahu mooy lamp ba huwa Cheikh na Tidiane albadru mooy weer wa wal misbaahu mooy lamp ba wan naj mu mooy biddiw baa xam ne fit du jaar ci jamonoy lëndëm kuy dem ci yàlla xamoo foo jaar maam Alaaji Maal nee dugal ci tariqa bu ñuy wax Cheikh boo amee affaire ak ku ñuy wax Cheikh na Tidiane mu gin la ba nga yegg ci yàlla mu ne wa marqan ila baytil makarimi wal adli mooy ascenseur bi nga xam ne mooy yéeguwaay bi gën a gëm ci dem ci yàlla moo tax Seydina Muhammad dañ ko laaj ne ku jullit lu gën ci moom mu ne almawtu ñu ne ko yéefeer lu gan ci moom mu ne dee ñu ne ko bu ñu jaaxal jullit lu gan ci moom nga ne dee yéefeer lu gan ci moom lu dee mu ne waaw almuminu fal mawtu xayrun lahu wal kaafiru fal mawtu xayrun lahu kii jullit dee gën ci moom kii yéeféer dee gën ci moom ñu ne jullit nan la dee gënee ci moom mu ne wa maa indallahi xayrun lil abraari li ngay def fii di ko kii di ko am ci àdduna wa maa indallahi la nekk ci yàlla xayrun moo gën lil abraari ñeel ñi sell jullit yi piir buñ demee ci yàlla dañ doon réccu lu taxoon ñu di fi dund buñ demee mu gën a neex ñu ne ko waaw la d'accord nañ waaye yéeféer ana lan la dee gënee ci moom alquran wa maa num innama num li lahum li yasdaadu isnan wa lahum azabum muhin innama xamal ne num lii dañoo yéex a lahum ñeel leen li yasdaadoo ngir ñu dooleeku rek isman man nu mu gën a yàggee ci àdduna di gën di fàgg lu ay dóoram di gën di métti kon nu mu gën a dee doon yi gën dee dóor gën a wàññeeku moo gën ci moom kon dangay ngay dégg ne sunu dund gi li muy neex neex ci ñun suñu dee Cheikh na Tidiane nee na balaa taalibe Cheikh xam maay kan mu tëdd ñetti fan ci bàmmeel ku dul ñetti fan di bàmmeel xamoo li ma lay jëriñ man Cheikh na Tidiane yi seen ku tëddul ñetti fan ci bàmmeel xamoo lu ma lay jëriñ man Cheikh Ahmed Tidiane waaye oustaz jeexal nañu xadara bi jeexal nañu wazifa bi waaye fokk ñu ñëw ci istixfaar bi nga xamante ni moom la ñuy jàng bu ñuy wazifa bokkul ak istixfaar bi nga xamante ni moom la ñuy jàng ci bu ñuy jàng ci suñu laazim buñ ci jógee fokk ñu ñëw ci salaatul faatihi ñëw ci baatu hayla la ndax lii mooy tarixa bi lan moo waral ci wajifa ñuy wax astafurlah al azim allazi la ilaha illa huwa al qayyul qayyum lan mooy différence am ak istixfaar xam nga wasifa dafa doy hmm wasifa occasion la rendez-vous la hmm. boy la ra yontu bi ñono na wirdi mën a yontu mën na bañ a mais wasifa li tax ñi laal malaan mu yontu bi day ñëw forcément wird nag kenn ku ne sano maqam bi nga am bo amé daraja yontu bi téwé sa wird mu téwé ko moo tax forcément ñi laal lal malaanu wird ku ne mbolo wird du ku ne sa bop la hmm. mais wasifa forcément dafa bok ci suratu tariqatu tijaani hmm. nga diko téwé bo amul ngant motax istighfar ba fële ak bi du benn istixfaar bi ngay def ci wér wérd mooy yàlla tooñ naa la baal ma jeex na kooku yàlla ngay waxal mhm. bi ngay wax ci wasifa boobu da ngay yóbbante <laughs> da nga naan yónente boo demee nga ne yàlla moo tax bokkuñ <laughs> yàlla baal ma yàlla ngi lay dégg bii nag da nga naan yónente bi yaa ñu gën a jege yàlla comme ñëw nga ci wasifa bi yóbbul ñu sañu dossier soo mhm. demee neel yàlla lii ak lii moo tax moo doon tilkal amaanatu tak fi man takuna lahu muballiqan yaa manul isaala yàllaaw tilka lii ma def ci yàlla muy taysir bi al amaanatu waaye nag tilka ama takk fii man takk fii dana doy mu balliqan yaa manul isaala yàllaaw yow mi nga xam ne yaa am relation sa digganteeg sa borom sama sama sama dossier ngi yóbbuwaaleel ma ko ndax xam naa dossier boo teg ci la ko yonti mu dem moo tax bu ñuy wasifa wasifa balee wird istixfaar bee du bokk ak bii bee xam nga mooy lan bii yàlla jéggal ma la mooy bi ci wird yàlla tooñ naa la jéggal ma yàlla njaaloo naa baal ma yàlla fen naa baal ma loolu rek ngay wax ci wird wasi wird nag da nga naan yàlla tooñ naa la tooñ yi rëy na lool ñëw naa baal ma ko maa ngi dellu su ma delloo it bu tooñ yi rëyee ma dellu si ndax xam naa ne bu ma dellu see nga baal ma ñaari bu ci gën a matale bii moo gën a matale mhm. moo tax ñu boole ci boo demee yonent bi keroog bi nga xamee ne xaswatu Tabuk am na ñu ne Uhud mhm. sallallahu alayhi wa sallam dañ dem ba mu yàgg ci Uhud ñu annoncé ne nabi génn na àdduna mhm. kenn gisatu ko ci biir guerre bi سيدنا علي ديكو ربام ياك مو فيكو مو توك بن شوفو غراب نان يا حيو يا قيوم ني نكون حي القيوم مو اسم الله العظيم ندخ موم رك لا يالا تود نينتي يون تي القران تود كو تود كو حي القيوم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم دنگ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ني نكون مودي موي اسم الله العظيم موتاخ يونتي بي جوخ كو سيناتي جان نكو جيل اسم الله العظيم ген ген ngeen mixé ko. Mhm. ak istighfar bi ndax yàlla lu ngeen ci def mu baal leen. moo tax bii yàlla mooy yàlla tooñ naa la baal ma. Mhm. maa ngi dem. su ma dellooy dinaa la tooñ xam naa ndax matuma al insaanu li mama sumiyal insaanu insaanan illaa li kasrati nisyaanihi wa kasratu xisyaanihi mhm. doomu adama dafa gaaw a fàtte mën a tooñ ñu ne kon yàlla tooñ nañ la mhm. ñu ngi lay jéggalu ñu ngi dem mhm. ñu la tooñee tamit danañ dellu siwaat ndax xam nañ ne suñu dellu see nga baal ñu kon loolu mooy différence bi suñ ca paree nag ci la ñuy dog a ñëw istixfaar bi suñ ca paree rek fóotu nga seet nga yàlla bi mu ne ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mm-hmm. sun maam laa jab da baax nee na booba ëllu hadara dañu dajee ne yonent bi dafa sellu lool yiw lool te ñun dañoo takk lool mm-hmm. ku takk mënta julli ci ku sell kon allahuma salli yow yàlla yaa xam nu mu toll salli ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam boobu ban la mun il fatihi li ma uxliq waaye li lay xamal ne li lay xamal ne li ñuy ñaan ñun mënuñu ko wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazimi dañ cee boole ñaar yu bokkul wa ala alihi xaqa qadrihi xam nga mooy lan mooy daraja ji yonent bi am ci kaw suuf wa miqdaarihi mooy daraja ji mu am ëllëg yowm alqiyamat miqdaaru yonent bi ak qadru rasulillahi du ñu benn il faut nga xam loolu miqdaaru rasulillahi ak qadru rasulillahi dañoo wuute boo demee ci kutubu suura mbuub dinañ la wax ñu ne la Seydina Muhammad keroog bi mu rañaanee dajeeg boromam. Mm-hmm. yonent bi sunu borom yàlla def ne ujjil leen ko safara. est que mu vérifier safara gis métit ya fa ne. mu ne ko pour boo demee nga mën a waare saw xeet ñu gën a mën a ko lii ndax bëgguma ñu ñam ko. dëgg la mu ne vérifier leen aljana wan leen ko mu vérifier ñu ne ko li fi nekk ci xéewal soo demee nga nettali ko saw xeet pour ñu góorgóorlu parce que fii ku fi dugg leneen loo am lee ko daax. dëgg la waaye bi mu génnee ci aljana dafa yem ci benn magasin bu ñu tabax lu mel ni magasin lépp leer la mu ngi ci ndey jooru buntu aljana mm-hmm. ñu vérifié ko bi mu fa duggee mu ngi fa fekk jalu jalu montagne boo xam ne dafa mel ni galaas guy toq mais lépp or la. Mhm. mu laaj Jibril na ko waaw lii jale nii di toq lii toq mel ni galaas galaas gi di toq mel ni or rafet lool bii di yéeg di wàcc lan la. Jibril na ko lii mooy yow. mu ne ko lan mu ne ko sa jëmm jii ñu bind dëgg dëgg darajay bu buñ ko wàccee ci kaw suuf suuf àtte na ko. est que ñu comp ca tuuti bind doomu aadama. moo tax mu daana inama ana basharun mislukum mm-hmm. waaye yuuxaa ilayya mooy comp nañ ci sama haqiqatul muhammadiya jëlee ko ci man mm-hmm. haqiqatul muhammadiya boobu moo la may booy wasifa mm-hmm. nga gis yonent bi keneen di wasifa gis ko boobaa du jëmm ji tëdd ca Médine jëmm ji tëdd benn jëmm ji la mais ci haqiqatul muhammadiya lañ jël mool ca jëmm yonent mu ñëw e-, teewe wasifa wi kee ko gis fale kee di ko gis te benn jëmm la ñoo ngi koy haqiqatul muhammadiya haqiqatul ko yonent bi te mu ko lii la mu ne mooy yow dëgg لول مودي مقداره اسكي وعلى علي حق قدره حق قدره نك مو تدي تي مدينه المنور مقداره الله كي لاي تخاو رام مبولم جام الله اكبر موتا يونت من من صلى عليه مره صلى عليه الله عشر مرات واي ومن صلى عليه عشر مرات صلى عليه الله 100 مره جسنا مبو بو جولي تي يونت بن يون فكي يون لا نيو جولي تي ياو لا نيو جولي تي ياو خمغا لول ماي لان julli wuñ ci yow yow kenn du julli ci yow waxin la déggin la laat yàlla dafay jël julli gi nga julli benn julli gu ne mu julli ko fukki yoon fukki yoon boobu da koy jël fayee la ko yeneen fukki yoon mu dolli ko ci xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul muhammadiya nu muy gën di feesee rek ci la ñuy yonent bi di gën di man di rammoo jaam ñu yoomal xiyaamati moo tax ñuy dem ci salaatul fatiha buñ paree na ñu ñëw kon fóotu nañ ba set ci astaghfirullah ci la ñuy mën a dogoon ak ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que bo setul do meuna julli ci mom buñu paré ci julli ci yonent bi yonent bi ku julli ci mom rek yàlla ubbi la buntu bi wa anta babullah ayumri atahu min khayrika la yadkhul kuy dem ci yàlla ta jaro ci yonent bi do dug motax bi nga jullee ci yonent bi ñu ubbi la buntu bi rek nga am sañ-sañu nan ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah bu jeexee ana lan moo ci andiwaat jawharatul kamal lan moo ko ci andeeti yow fóotu nga ba set julli nga ci yonent bi ba set ba ba chargé ay leer ubbil nañ la bunt bi bàkk nga sa borom jeex na kon lan moo andiwaat jawharatul kamaal bi hmm. ñu ne jawharatul kamaal mooy kado bi mooy cadeau bi yàlla di takkal yu mooy garaat yi hmm. comme nag ñëw nga bàkk nga yonti ba yonti ubbi la waaye hmm. waaye kilifa dëgg boo ko terelee mu takkalee garaat Macky Sall boo defee lu rëy ci lëkk bi da takkal garaat bu ñuy tuddee l'ordre l'ordre national national mooy jawharatul kamal l'ordre national du mérite bi yonent bi ayo mérito comme moom moo gurgural xeet bi jël tariqa bi jox ko Cheikh na Tidiane yi mu taat mu mu mu mu mu dugal ci taalibe yi ba ñuy bàkk yàlla yàlla ne su ngeen ma bàkkee balaa ngeen dem ma takkal leen garaat kon loolu mooy jawharatul kamal ci wasifa